asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku journaliste yi teew asalaamaaleykum yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo def déplacement ñëw tey ci point de presse bi di leen gërëm yéen journalistes yi ci ponctualité bi mais également ci mobilisation bi voilà di féliciter Abdourahmane Sall Abdourahmane Sall nga xam ni bon accordez-vous hein les journalistes d'abord c'est bon c'est bon madame voilà donc boo leen waxtaanee seen biir rek jubóo ça j'en suis persuadé merci madame di nga wàññee éclairage bi alors donc di remercier Abdourahmane Sall wax naa ko bi ma koy nommé coordonnateur parrainage c'est un ingénieur polytechnicien et MBA de Paris Dauphine mais également nekk un haut cadre dans une multinationale bi ma koy jox objectif yi j'étais persuadé que dina leen atteindre et je lui disais dans nos entreprises en tout cas entreprise ba nga xam ne liggéey naa fa di fa liggéey ma suñu joxe benn délai ni projet wala travaux yi ci délai bi lañ koy def te réduire uma délai parce que pour man il faut ñu jàng di accélérer di accélérer ay projets pour di réduire au mieux les délais je sais qu'il à cela ma ni ko 75 jours lan nu jox avant le début du dépôt des parrainages je veux que 45 jours avant le dépôt le début du dépôt des parrainages na nga pare liggéey bi Et vous avez entendu avec l'équipe les missions régionales. On en avait 14, en plus des coordonnateurs régionaux, en plus des coordonnateurs communaux et départementaux. Ces missions régionales am na yu ci séjourné plus de quinze à 20 jours ci région yi pour travailler avec les équipes sur place et je suis satisfait de voir que vous avez pu faire 127 453. On nous demande que nombre bi ñu war déposé nekk ci sept régions au au moins nga am ci 2000 mais là on a 14 sur 14 régions où on de 2000 et je vous félicite et je félicite toute l'équipe qui mënoon nañu continuer parce que délai bi des na mais maa ngi wax sénégale yi ni bis naka tey j'arrête la collecte pour le parrainage ñi nga xam ni seen fiche jotoon nañ ko remplir ci numéro 40 mënuñu dem parrainer keneen fiche yooyu na yegg si mais à partir d'aujourd'hui képp kuy militant responsable sympathisant du président Déthié Fall alors que jotoogoo woon parrainé demal nga parrainel beneen candidat bu position parce que je suis pour l'inclusion et je suis contre l'exclusion quelle que soit sa forme et aujourd'hui le président ci exclusion mi ngi utiliser deux mi ngi utiliser le règlement des conflits par la justice pour écarter certains candidats mi ngi utiliser l'achèchement des parrains pour que yenn candidats yi bañ a am parrain et je disais à Abdourahmane Sall que boo leen continuer di collecter da ngeen di nekk ci dynamique bi président am nekk di asséché parents yi alors que am ngeen li ngeen soxla boo leen amee li ngeen soxla da ngeen di xaajal place pour ñeneen ñi mën a collecter parce que inclusion loolu aussi da ci bokk donc ñun ci sunuy principe lu nu wax dañ koy bëgg jëfe et on est contre l'exclusion des candidats quelle que soit voie bi nga xam ni nit utiliser na ko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 lii àdduna bi di xaar adduna bi yëpp teg ñu bët mooy nanu fexe ba nunu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale je pense li ci wér mooy taxawaay bi ci war ñun daan ci taxaw parce que tey chantier wum mi ngi war nekk immigration immigration clandestine bi ku amul mettit ci yéen ñi fi toog ku amul mettit en tant que sénégalais gis sunu ay frères sunu ay sœurs conditions yi nuy demee bitim réew jafe-jafe yi ñuy demee bitim réew parce que li ñu bëgg ci biir réew mi amuñu ko malgré ça ñu yegg ci réew yooyu ñu rejeté leen ñu war encore dans des conditions beaucoup plus pénibles avec le stress bi ñu ñëwee ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan te bare na lool ñu war di gis tous les jours image yooyu nga doon président de la république sénégalais jox la confiance pendant douze ans pour nga régler problème boobu réglé woo problème yooyu mais nga nekk plus ci nooy xoolee nooy faagaagalee ay opposants ce n'est pas cela qu'on attend de lui émigration clandestine bi maa ngi wax ak sama mbokk sénégalais yi bu doon sama sago tey ci ñi jël gaal gi yépp dama naan leen dellu si leen ma teg lii seen loxo mais loolu mënaguma ko wante bu tere ma ñaan leen ngeen dellu si biir Sénégal ndaxte Sénégal la ñu am le changement qu'on veut ce sera avec vous le développement qu'on veut ce sera avec vous on a assez assez donné notre expertise notre force aux autres il faudrait que aujourd'hui expertise boobu ak force boobu ñu ko pour le développement de notre pays bu fekkee cette jeunesse qui représente plus de 70 pour cent ci population bi ñoom ñëpp amuñu benn ambition parce que metti na te ñu comprendre leen aussi dem génn réew mi kan mooy defar réew mi suba di leen demander ñu dellu pour que changement bi mën a am 2024 pour que ensemble ñu engager les projets yuy defar Sénégal en tout cas je prends l'engagement ici que bu ma sénégalais yi defee confiance changement yi war dinaa ko def du point de vue de l'emploi fexe ba li nu waxoon avec l'agriculture nga xam ni Sénégal kenn gënuñu am taxawaay kenn gënuñu am wërsëg ci yàlla ca la nga xam ni jox nañu ko te ñu mën ko utiliser ci mbirum mbay mi du ma dellu ci terre yi ñu am au niveau de la vallée du fleuve Sénégal du ma dellu ci terre yi am au niveau de la Ndambé du ma dellu ci yeneen am ni am nañ ko sur le reste du territoire national yooyu yëpp buñ ko utiliser non seulement am nañu souveraineté économique mais également am nañu xëy yu nu mën a jox ndaw yi enchaîner ko ak l'industrialisation le renforcement du secteur privé start-up les initiatives privées les PME yooyu yëpp boo leen dajalee et c'est dans le programme bi nga xam ni définir nañ ko yooyu yëpp ça donne des emplois et loolu c'est bien possible à partir de 2024 ñii lajj nañ ci mais ñun c'est très clair ci sunu vision c'est très clair ci sunu orientation et bu ñu yegsee dañ koy appliquer malheureusement le président ne s'occupe pas de cela qu'est-ce qu'il demande gis naa ko ci presse tey bi nanu assurer la continuité quelle continuité la politique qui a fait que lii xew ci géej gi cette politique qui a fait que lii xew ci éducation bi cette politique qui a fait que lii xew ci santé bi lii xew ci chômage bi nee na nanu assurer continuité bi Est-ce que vous êtes prêts à cette continuité-là Je dis au président que les Sénégalais disent non. On a fait 12 ans avec du MS. Pendant ce temps, toute l'opposition, ku bëgg bouger, ñu freiné la. Et on pense que loolu mën na continuer mënul wéy. Nous lui avions donné tout le respect qu'il mérita en tant que président de la République. il faut en retour que mu doon donner à l'opposition ce respect bi nga xam ni da leen ko devoir mais mënul di continuer di leen teg lu metti loolu la continuité par rapport ak l'éducation cette continuité qui veut dire quoi il a commencé par ubbi tey jàng tey il est passé par oubbi tey grave grève tey il atterrit ci amatul ubbi les universités sont fermées kenn ubbiwu ko pourquoi parce que le calendrier politique moo war maintenant dicter le calendrier universitaire tu peux pas créer tes problèmes ba pare ni problème yii ma créé daf may yóbbee du université boo ubbil université sénégalais yi di jàngee fan ngay di jëlee xam-xam fan ngay assurer ce présent et ce avenir fan ngay permettre cette jeunesse la mu am ay diplômes pour mën a nekk sur le marché de l'emploi non seulement les diplômés ils n'ont plus d'emploi ils partent mais ñi nga xam ni ñoo war a yegg si ngeen leen finalement damay tëj université yi doo leen mën a jàng et pendant ce temps ça ne le gêne pas mi ngi wër Nous lui demandons d'ouvrir les universités. de crises politique yàgg na fi am et yàgg na aussi muy am université du ubbi université du fonctionné ne ko ubbi d'autant plus que crise bi moom moo ko créer boppam te mën na ci génne boppam te lii sénégalais yi di ñaan mooy ñu génn ci te le set mën nañ ci génne ci génn il suffit juste de réhabiliter Ousmane il suffit juste de laisser tous les opposants aujourd'hui li nga xam ni constitution may na leen ko mu may la ko ba ban respecté la ci nga may leen loolu ñu mën ko exercer aussi simple que ça parce que du ci profit du ci avantage du ci intérêt kenn réew mi takk du ci avantage du ci intérêt kenn réew mi takk nous sommes des patriotes